moo leen di nuyu di leen ziyaara di ndokkeel mboolem ku ne ci groupe bi di ziyaara mboolem ku ne ci groupe bi di nuyu sunu jëwrin sëriñ Saar mi nga xam ni mooy sunu jëwrin ci groupe bi ñu ngi koy ziyaara bu baax a baax di ndokkeel mboolem borom xam yi tey jéggalu ci borom xam yi ci groupe bi xam naa ñu ñëw rek comme niñ ko waxee woon Euh, ginnaaw bi nga xam ni sunu mbokk mu baax moomu di Serigne Sarr sàkk woon na ci ñun ñu jéem a nafarante ak yéen téere bu tedd bi ak fànn gu tedd gii di ilmul usul téere bi ñu bëgg ñu nafarante ko nag mu ngi tudd mu lu war Nadmul Waraqaat li sharafi diini al amriti rahmatullahi alayhi euh, di gërëm bu baax Serigne Sarr nag nga xam ni yeneen nañu tuyaaba ndax ku sàkku ci yow nga jàng rek moo la yéene tuyaaba euh, ginnaaw bi mu sàkkoon ak ñun nafarante ak ñoom téere bii nga xam ne mooy Nadmul Waraqaat ñu ni woon nañ ko commencé tey incha allahu rabbi di ñaan yàlla yàlla may ñu ñu àggale ko ak jàmm lépp luñ ci juum mbaaluñ luñ ci jaxase mbaa ci yàq yàlla jéggal ñu ko tey sàkku ci kilifa yi fi nekk lépp luñ ci juum rek ñu jubbantil ñu ko in allahu rabbi ñu ngi ziyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp di ñaan yàlla may ñu ñu commencé ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ñu commencé ko jeexale ko alhamdulillahi rabbil alamin euh, téere bi ñu bëgg a jàng nag mi ngi tudd ñu ngi koy ñu ngi koy gën a miire ci taxsilu turuxaat fi nawmil waraxaat di jàngale fànn gi ñuy wax xilmul usul muy fànn bu ama am solo di génn fànn ci di génn xeetu xam-xam ci xam-xamu diine di xam-xam bu ama am solo xanaa balaa ñuy commencer lu ñàkk ñu leeral ñu leeral tuuti ci téere bi ak borom téere bi ak cosaanu téere bi ci gàttal nag téere bii ñuy wax taxsiilu turuxaat fi nazmil waraxaat cosaan li mi ngi doonoon waraxaatul imaamul aramayn euh, téere bi ñuy wax waraxaatul imaamul aramayn téere bu siiw a siiw la benn borom xam-xam bu ñuy wax al imaamul aramayn abul maali diyaa uddin abdul malik ابن أبي محمد ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد الجويني نقول كوميونيتي إمام العرمين الجويني دي haramayni al خم بو boroom xam-xam bu mag a mag bokk ابو المعالي imaamu دي امام دي امام العرمين كوم نينكو di imaamul خم بو ni ñu ko waxee boroom xam-xam bu mag a سيو لول bokk ci madhabu imaamu Shaafi'i di ku ca siiw lool siiw lool ñu nga xam man mën nañu téere yu ndaw yi mu bind ci usul moy bi ci gëna siiw bokk ci ci ëpp barke bokk yi ci tasaaroo yi ci gën a tasaaroo bari barke lool borom xam yi sukkandiku ci ginnaawam ñii saraa ko ñii way ko bokk na ci ñi ko way nag mooy ba eh, sharafu diin mii ñuy waaj a jàng téeram al imriti yaxya ibnu moussa ibnu ramadan al imriti wayam wii nag bokk na ci way yi gën a siiw yu ñu woy nag mul war a xat moo tax ñu taamu ko comme bari ay way lool waaye wayam yi dafa bokk ci ci gën a rafet bokk yi ci gën a mel na mu war a mel moo tax ñu taamu ko fas yéene koon nafarante ak yéen bu soobee yàlla imaamul arab yi nag ni ñu ko waxee borom xam bu mag a mag la mi ngi bokk ci mazhab imaamu Shaafi'i yi bind na téere yu bëree bëri ba bindee war a xaat na téere bu ñuy wax alburhaan bind na it ci fiq euh, bokk na ci nga xam ne moom la borom xam Shaafi'i yi ndamoo euh, comme ni ñu ko waxee moom ndam la ci mazhab imaamu Shaafi'i yi comme ni ko waxee se bokk na ci li nga xam ne ndam la ci moom moom sëriñ la ci imaam Ghazali boo ko jàngal fànn gi di ilmul usul ku xam imaamul Ghazali xam ni mu xamee fànn gi xam ni mu géejoo ci yéen fànn yëpp waa doy na doy na imaamul Aramayni rek ñu ne mooy sëriñ imaamu Shafii ci ilmul usul euh, demee ci tabaxaatu Shafiiya imaamu Shubki day koy ca tarjamaam ja wax na ni bokk na ci ñi nga xam ni mazhabu Shafii da leen di tiitaroo ci xam-xam bu bari ak ci yaatal gu mu yaatal ci fiq ak ci usul kon loolu rek la ñuy wax ci moom ngir bañ a guddal xam xamle gi ngir bañ a guddal mbir ñu dugg ci téere bi ki nga xam ne nag moo way way wi nga xam ne moom jël moom la wax yaxya ibnu moussa ibnu ramadan alxamriti moom itam borom xam la bokk ci mazhab imaamu shafii mom itam doon dund ci dixième siècle moom moo jël téere bii di alwaraxaatul imaamul arabani nazmu ko tuddi ko taxsiiru turuxaat nazmil waraxaat way ko nag am ci ay ziaraat yu mu ci dool yoo xam ni ñëw na ci téere bi waaye way na ko ci aram gu leer a leer goo xam ne daal képp koo xam ni yàlla dogal na nga jàng ko yàlla mën naa dogal nga jëriñu ci nag fànn la goo xam ni gu ama am solo la goo xam ni mënta ñàkk mën nañoo wax ni mën la ñàkk ki nga xam ni bëgg na jaar ci yoonu xam-xam mu jàng fànn googu ba borom xam yi sax dañuy wax ni ilmul usul nag képp koo xamul képp koo xam ne jàngoo ko xamoo ko yow dañ la daganul ci yow ngay jëm ngay jëfandikoo nas yi li nga war a def rek mooy li nga fekk ci téere rek boo te bala nga koo jëfee it nga dem nga dem laaj ko waaye daganul ci yow benn yoon ngay dem ci nas yi dañuy waxee nas ñu ngi ci jublu alquran ak xadiis ndax fànn la goo xam ne ku ko umpale doo man doo mën a xam lan mooy maqsuudu yàlla ak yow salaa sallam lu ñu jublu ci alquran ak lu ñu jublu ci xadis doo ko mën a xam kon fànn la goo am solo goo xam ni mën la ñàkk mom usulul fiqh kon yàlla na ci gep ko xamni da ngay geussu ci sa diine nga fexe ba fànn ko nga am ci ab yóbbal ngir mana de ja ngir mana geussu ci alquran ak ci sunna bu dul lolu rek bu nga xamni dañuy wax ni yow de sañoo ko li ngay def moy li nga li nga jàng ci tere ñu salako nga yam ci te lu bala nga ci jexé dara nga dem laaj ko kon rek lolu wane na importance xam-xam bi mom moy usulul fiqh ban importance la am tayit bép bépp borom xam-xam lu mu rëy rëy xam-xam. lu mu xam-xam fiq te xamul fànn gi di usul kenn du ko tuddee kenn du ko tuddee faqih ak lu xam-xamam rey rëy rek ndax li tax du mën a tudd faqih même bu fekkee ne jàng na fiq mooy du xam fiq ba mu jàng nu mu ciy ciy génnee ay atte atte boo xam ni it ñëwul ci texte yi mu jàng nu mu koy gëstoo ba génne ko ci alxuraan ak ci sunna du ko mën a xam kon kon masala muñ ko waxul rek du ko mën a xam du kon daal kër koo nga xam ne jàng naa li nga xam ne mooy ilmul fiq te jàngul usul kon kooku kenn ba léegi turagul faqih loolu tax sax am ci boro xam ñoo xam dañuy wax ni nit dafa jaadu ci moom bala moo jàng ilmul fiq mu jàng ilmul usul ndax usul mooy fondement bi kon dañuy wax ni nit balaa sañ te tabax balaa moo tabax day fondement sinon fondement ba day daanu loolu ñenn ci boro xam yi wax nañ ko donte am na nañu ne nag déedéet nit war naa mën a jàng fiq ba xam ko doog ko jàng usul donte usul mooy fondement bi waaye daal li ñu jubloo wax rek mooy mënta ñàkk ci nit ki nga xam ni day jàng fiq mu jàngi almul usul bu du loolu fiq ba mu jàng mën na bu ko bëggee jariñoo dana am jafe-jafe ci moom kon daal almul usul ci gàttar rek ci tënk ci fànn gi fànn la goo xam ni day li muy gëstu nag li ko tax a jóg mooy gëstu ci tegtali sharia yi moom li ko wutale bokkul ak fiq bu ñuy wax usul nag moom mooy fondement bi fiq moom la ñuy tabax ci kaw comme li ko tax a jóg fiq nag mooy comme ni ko borom xam yi waxee mooy gëstu ci tegtal yi nga xam ni moom la moom moom moom mooy tegtali sharia yi loolu mooy ilmul usul euh, comme ni ñu koy waxee usul usulul fiq nag ci li muy gëstu mooy addalailul ijmaliya tegtali sharia yi nga xam ni mooy moo te addalailul ijmaliya tegtali sharia ci mbëbësal moom lay gëstu kon moom wute nag fiq fiq moom moo lay wax ni bu julli tisbaar nangam la nii ngay def nii ngay jullee nii ngay jullee moom da lay wax ni bu bu alxuraan dikkee di la aqimu salaata moom danaan la lu lii lu muy tekki taxawalal julli ñu ni ah loolu kon ndigal la ndigal la kon izni la kon léegi lan mooy ndigal nag loolu kon ci fànn googu lay gëstu moom bu alxuraan waxee ni taxaw leen julli ndigal lan lay lan mooy atteb ndigal ci sharia lan mooy atteb izni lan mooy am lan mooy xaas ci lu mel noonu moom ci loolu lay gëstu kon wuute nag fekk kon xam naa dañuy commencé téere bi jël muxaddima bi xaala alfaqiru sharaful amriti zul ajisi wa taxsiri wa tafriti xaala wax na kan moo wax alfaqiru aji aaja woo ji ndimbalal yàlla te loolu nag kenn génn ci yaa ayuha nnaas antumul fuqaraa ila allah yéen mboolem nit yëpp da ngeen a yitte woon ndimbalal yàlla kon borom téere yi borom xam-xam yi bu ñuy taalif dañuy faral di commencé xaalal alfaqir ñu di melal seen bopp ni ay nit la ñu yitte woon dimbalal yàlla toloon na kenn yéen moo tax imaamul amri te daan ni xaala wax na kan moo wax alfaqiru aji aajo woo ci dimbalal yàlla ji kooku mooy kan asharaf sharaf nag la xabam la sharaful amriti mooy ki nga xam ne mooy sharafu diinul amriti amriti comme niñ ko waxee ab dëkk la mu ngi dëkk ci dëkk bu ñuy al amrit sula ajisi kii borom ak lot wa taqsiiri ak gàttañ lu wa tafrit ak ëppal kon mën nañ loolu tawaado la day te ci borom xam-xam yi bépp bu ñuy commencé taalif ci ak fànn wala ñu wax xam dañuy toroxlu melal seen bopp melo yoo xam ne duñu wax ni dëgg-dëgg melo yoo noonu lañ meloo waaye toroxlu la rek ngir wane ne nit ñi nit ci boppam nit ci boppam aadatan nit ku lott la bu ko yàlla dimbaliwul nit ku gàttañ lu la bu ko yàlla dimbaliwul kon al ajis buñ ko waxee mooy adamul xudra mooy ñàkk kàttan a taqsir nag buñ ko waxee ci arab mooy adamul ikmal ñàkk a matale mbir ab tafrid nag mooy al ihmal maanaam mbir mi nga xam ne war nga koo def nga ñàkk koo def ni nga ko war a defee loolu mooy ab tafrid mel yooyu yëpp moo melal boppam lim ci jublu rek mooy moom doomu aadama la ku lotta lot doonte boroo xam la waaye ak tawaadox aada la ci boroo xam yi comme niñ koy waxe mu ni alhamdu mbooleem cant lillahi ñeel na yàlla alladi mi nga xam ne xad azhara feeñal na ilmal usuli xam-xamu usul lil waraa yëpp wa mu siiwal ko ala lisaani ci làmmiñu imaamu shafii nee na alhamdu maa ngi sant yàlla ci mboolem xeeti cant yi nga xam ne suñ borom yàlla na ko mi ngi koy sante yàlla euh, comme ni ko ñoom sallallahu waxee kullu amrin zi baalin laa yubdaw bismillah wala bi alhamdulilah fa huwa axta mépp mbir moo xam ne commencé nañ ko te commencé wuñ ko alhamdulilah mbir moom mbir mu dog lay doon am ñu ni mbir mu ñàkk barke lay doon doonte hadis boobu am na ñu koy jëm di wax ni am na ni wérul waaye nag euh, hadis bi ñëw na ci yoon yu bëree bëri am na borom yoo xam ne nañ am na darajay darajay xasan ndax ñëw na ci yoon yu bëree bëri waaye lu mën a xew rek maanaam mi wér na loolu moo tax borom xam yi ci da ngay gis bu ñuy taal fi ñuy commencé alhamdulilahi rabbil alamin lu bëree bëri bëri téere yu bare ba noonu la ko seen borom commencé ndax hadis boobu. mu ne mi ngi sant yàlla mi nga xam ne nag moo feeñal xam-xam bu tedd bii di xam-xam bu usul ñeel mbindeef yépp waaye nag mi ngi ko feeñale ci lisaanu imaamu Shafii lisaan bi maanaa xalam ndax dañuy wax ni lisaan euh, mi ngi ko feeñalee ci làmmiñu imaamu Shafii mi ngi ci jublu mi ngi ko feeñalee ci xalim ak imaamu Shafii rek waxawwanaata mu yombal ko ndax imaamu Shafii moom mooy ki nga xam ni moo njëkk a bind ci fànn gii di ilmul usul mom mo ci njëkk bind li ñuy wax ab téré imam Shafii mi ngi doon dund ci lu siècle mi ngi mi ngi juddu euh, atum témer ak téeméer ak juróom fukk su ma koku mo imam Shafii kenn la ci imam ahli sunna yi imam la bu maga maga mag bo xamni ko bari xam-xam la moy njëkk bind ci fann gi ñuy wax ilmul usul donte nak ilmul usul kenn du wax ni amu fi la ta imam Shafii ndax xam-xam bi yag na fi man nañ ni mi ngi fi won ci sallallahu wasallam sahaba yi da ko jëfëndiko yoon saa salaam laa ko jëfandikoo ndax booba xeeti xam-xam yi génnagul ñu daan ne xam-xam bii mooy na xam-xam bi ndax loolu xeeti xam-xam yëpp dafa tënkoon ci biir làkku arab rek mu nekk ci loolu ñu daan ko jëfandikoo moo tax Sidatullah di wax ni awalu man allafahu fi lkutubi muhammad ibnu shafi al muqallibi wa xayruhu kaana lahu daliqa misla allazi fi lorbi min xaliqa ki nga xam ne moo ci njëkk a taalif ab téere bu ñuy tudd mooy muhammad ibnu idris al shafi imaamu shafi waaye la laataa loolu rek sariixa la woon ci arab yi maanaam seen jikko la woon ci ñoom maanaam lu leen yàlla moo moo ñaale woon la ci seen làmmi ñu di ko jëfandikoo moo tax ku mel ne imaam imaam Malik moo jiit imaamu Shaafi'i ba muy ñëw fekk kenn taalifagu loon ci fànn ko kooku waaye imaamu Malik boroo xam ne danoo tatab topp ay téere ak ay waxam ñu gis ni moom itam daana ko jëfandikoo kon xam-xam bi xam-xam bu fi yàgg la waaye nag xam-xam yëpp noonu la génnee ci lislaam lu jamonoy dox bi nga xam ne jamono dox na ba ñi nga xam ni ay duñu ay duñu ay arab tuub dugg ci lislaam jaxasook arab yi ba araab yi daanaka xaw a ñàkk seen làkk lu bëree bëri dugg ci ba jaxasoo gi am loola ci borom ci la borom xam ne commencé taalif téere yi waaye bu njëkk ab arab soxla woowul woon li ñuy wax naxwu mbaa arut mbaa luxa mbaa bayaan mbaa lépp lépp rek dafa nekkoon ci biir làngam mu di ko jëfandikoo moo tax moo tax Sidi Abdallah di wax xayruhu kaana lahu salixa salixa la ci ñoom jikko hmm? euh, jikko la woon ci arab yi ñu ko jëfandikoo ci seen làmmiñ mu ànd moom waaye bi imaamu Shafii ñëwee nag moom moo ci njëkk a bindu téere mooy arisala taalif ci andi ci ay andiwul lépp matalewul nag waaye andi na ci yenn rek nga xam ni ci la borom xam-xam yi sukkandiku ci ginnaawam taalif taalif di gën a yaatal ba fànn gi agsi ba agsi ci ñi nga xam ne mooy ku mel ne imaamul jooy ni borom bi mu taalif ci moom itam ay téere noonu la fànn gi agsi ba ba jamono jii ñuy wax kon euh, li ñuy wax mooy kon moo tax mu ne awwalu man allafahu fil kutub comme ni ñu ko waxee ala lisaani shaafi'i wa hawana yàlla mi nga xam moo si feeñal xam-xam bi siiwal ko ci làmmiñ imaamu Shafii wa hawwanaata mu yóbbal ko wax wa moom al imaamu Shafii allazi mooy ka nga xam ne lahu ñeel na ko dawwana ak bind ibtidaan ci tàmbali moom mooy ki nga xam ne moo njëkk a bind ci sa ci fànn gi moom al imaamu Shafii rahmatullahi alayhi wa taabaatuhu topp ko annaasu nit ñi xataa saara ba mujj kutuban di ay téere sigaaral ajmi yu rëy ay mool aw aw kibaara maanaam imaamu Shaafi'i ginnaaw ba mu ci taalise borom xam yi nekk ginnaaw bi ñëw ci ginnaawam comme niñ ko waxee ñoo ko topp ku nekk di bind ay téere di taalif ba mu doon ay téere yu mag ak yu ndaw maanaam imaamu Shaafi'i bi ci taalise borom xam yëpp ku ñëw ci ginnaawam rawatina waa mazhabam bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo ci gën a bind ci ay téere téere yu mag am na ci lu mel ne jamxul jawaame lu mel ne ak yeneen i téere yu mel ne maraqi saxuur wala yeneen ak yeneen yoo xam téere yu mag lañ lu mel ne alburhaan bi nga xam ne borom téere bi moo ko bind téere a mag usul waaye am nay téere yu ndaw bu mel ne téere bi ñuy jàng tey muy nazmul waraqaat moo tax mu ne imaamu Shaafi'i borom xam ne topp mu mujj doon téere yu mag ak ak yu ndaw wa xayru kutubihi sixaari wa xayru kutubihi sixaari maa sumi bil waraqaati lil imaamil haramayn wa xayru kutubihi bi gëm ci téere yi ak sixaari yu ndaw yi maa mooy ba nga xam ne sumiya def na ko bil waraxaatil imaamil bil waraxaatil imaamil arami moo ne téere yu ndaw yi nag bi ci gën téere yu ndaw yiñ taalif ci usul bi nga xam ne moo ci gën mooy bii ñu jàng bii nga xam ne moom lañu moom la ñuy jàng aw wayam mooy al waraxaatul imaamul arami abul maali moom lañ tudd léegi téere yi ci gën ci téere yu ndaw yi ba nga xam ne nee nañ daal mooy téere bii ñuy wax al waraxaat moo tax mu ni waxat su iltu laajeef na ma muddatan ab diir fii nazmihi ci way ko musahala mbir muy muy lu ñu yombal li xifdihi wax li xifdihi ñeel matt ko ñeel watt ko wa fahmihi ak dégg ko sëriñ bi ni eh, ay ay ay ndong ay ay nit toog nañ lu yàgg-yàgg di ma laaj di sàkku ci man ma way téere bi ngir ne rek way dafa bokk ci li nga xam ne mooy tax nit gën a mën a mokkal eh, mooy tax way dafa bokk ci mokkal nga xam ni téere bi bu nga xam ne téere bu ñu way mooy gën a yomb mokkal téere boo xam dañ koo weesal moo tax mu ni sàkku nañ ci man lu yàgg yàgg ngir ma way téere bi fala ma ajit amuma mim maasu ildu ci li nga xam ne laajeef na ma ko buddan benn sens waxat saraxta mbir moom soobu naa fii ci moom mustamidda mbir mooy sàkkoo tëbb min rabbinaa ci suñu borom ak tawfiixa dëppale li sawaa bi ñeel njub ga wa nafa ak njëriñ fi daare ni ci ñaari kër yi bi ci téere bi mu ne ginnaaw bi nga xamee nag laaj nañ ma ngir ma woy téere bii ay yoon yoon sàkku nañ ko ci man euh, aw ma nen nu ma ma def lu dul rek nangu li nga xam ne moom lañ sàkku ci man ma woy téere bi ci laa soobu nag ci way ko di ñaan ci yàlla mu may ma tawfiq may ma dëppale may ma njariñ ci ñaari kër yi ba ma mën a taalif téere bi àggale ko ca nu mu gëne kon loolu mooy muxaddima bi mooy suñu bindu tey incha allahu rabbi xam naa dañuy yam fii euh, comme ni mu ko waxee loolu mooy muxaddima téere bi ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu ñu àggale ko ci jàmm insha allahu rabbi lépp ñu ci juub yàlla ñu ko yàlla jéggal lu ñu ci jaxase moo xam ñu ko tey moo xam tey ñu ko yàlla ñu ko yàlla jéggal allamana allahu wa iyakum ilma tuqa walxamal salih